jokor leen majoor jokor leen buur maa ngi leen yi faaloo waaw ku majoor jokor leen joko majoor jokor leen majoor jokor leen daawdi yu lañ na waaw ku majoor jokor leen joko majoor jokkoleen gi leen tay moo xul fi nga juddoo biram jooju jub gelwaar ba mbaa moo xul fi nga cosaanoo jooju biram jooju jub gelwaar ba tay moo xul ni nga juddoo jooju biram jooju jub gelwaar ba ibra jamaay sa baay mu kumbe jibiri farmata nguur faamay mee sa ñoxoor jooju biram jooju jub gelwaar ba mare ba ma digin ko dog anta fal ma digin ko dog seen ma digin ko duf jooju biram jooju jub gelwaar ba ñu ko leen leen majo jokul leen leen jokol majo jokul leen leen majo jokul leen leen ay moo xul fi nga juddoo mbaa moo xul fi nga cosaanoo tey moo xuloo ni nga juddoo ibra jamaay sa bay mbukum de jibiri fari ma tangu faamay may sañu xor ma rey ma ma digin ko dugg gën ko dug seen bu mari gën koddu debem joju jum gel har ba ñooñu ma xur jëmbe nday seen bay ji ñax dem ba daali me sa jool dafa ramatal ma jojo njaay debem joju jum gel har ba dikkate ma maru jum gel har ba ba sama xacak xacc jojo biram jojo jox sa jey sa jum mo taaram ba ko tëng jox ko ti jabaan Coro Ndiaye. jooju biram jooju jub ngeen waar ba. Coro Ndiaye jox maa sàmm nu mbéy fàtte coro moom te maa jooju Coro Ndiaye mi dee ca ndaam de jooju Coro Ndiaye jox ko maam biram Coro Ndiaye mi ci gendaar. jooju biram jooju jub ngeen waar ba. kon maa jooju kër leen leen maa jooju kër leen leen maa maa jooju kër leen leen.

ne dambeel maa joor ko la gëy seen baay dambeel ma xuru jukkuli daaw dem ma xuru jukkuli biram ndaag ma xuru jukkuli ngoole ko du gëy seen jigéen jojo biram jojo juuf gen waar ba ñooñu dambeel ma samba tàkkooy seen baay joko maa jojo kor leen gilee joko jojo kor leen gilee nga juddoo joojo ba mbaa ma wax la fi nga cosaanoo joojo biram joojo juuf gen waar tey ma wax la ni nga juddoo joojo biram joojo juuf gen waar ba na boog jeewa awa faal ibra yaasin sarr amadou yaasin sarr ñooñu daawda bi seen baay mati dee mbaay baayam caamiñal ceek maam penda joojo biram joojo juuf gen waar ba samba faal sekkay seen baay ñëwor moy sa biige anta faal ñoxo faal kumba jimbi jàmba jojo biram jojo juuf gen waar ba jokkor maa joor jokkor leer kumba jojo kor leer jojo biram jojo juuf gen waar dem dëb kër biram nu mbeeg jàngi leer am foo mbaaco sàmb ñu yóbbu ko waala jox ko barakulli mbaaba mu am mbaaba mbaaco joor mbaaco jojo biram joor mbaaco ñu jox ko degen faali ca ba mu am ngoone degen joor mbaaco joor mbaaco ñu jox ko teeñ amari Birame Jojo Birame Jojo Diouf genn wàll ba mbokkum ndeyam xaar ja tamit ci Touba ndaam ak sarax Jojo Birame Jojo jojo ko leen leen ma jojo ko leen yee jokko ma jojo ko leen waayi kay déglu nu déglul cosaan waay ay déglul cosaan waaw jokkor maa joon jokkor leen jokkor maa joon jokkor leen jokkor maa joon jokkor leen daawuda déglul cosaan waay kay déglul cosaan waay bur déglul cosaan waay kay déglul cosaan waay bur déglul cosaan waay kay déglul cosaan waay bur déglul cosaan waaye bul déglu cosaan waaye yaay déglu cosaan waaw jokkoor ma jot jokkoor leen jokkoor ma jot jokkoor leen jokkoor ma jot jokkoor leen taw da déglul cosaan sa kër maam déglul cosaan waaye bul déglu cosaan waaye yaay déglu cosaan